Soxna Aïda maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay. mooy Daniel Sorano spectacle yaa ngi fay am ñu mel ni ay mbirum aar fecc bale ak fecc traditionnel tey boo xoolee ngay ñaari tey Sénégal ngay bëri na ñaari façon fecc yi fi nekk tey mooy feccum démb ak feccum tey Soxna Aïda ban différence la am. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk jullit yëpp di sant yàlla di julli ci sama sang yi Seydina Muhammadu Rasulullahi alayhi salaatu wa salaam di sant samay ñaari waajur nga laaj ma question bu rëy nag boo ma laajee ci peccum démb ak peccum tey peut àdduna ñetti fan la. démb la passé na tey la ñu fekk ko suba xamuñu lu fiy xew mais li nga xam ne moo sa nekkoon démb gënoon na ci gënoon na ci àdduna gënoon na ci aar gënoon na ci réew. ndax balaa ngay fecc organisé wu wut paas rey sa bopp doo xam fu ñu koy jëlee nga wut foo def location pour mun a jàngale fecc temps boobu ñu doon jël ci aar gis naa ne jëlatu ko ci aar léegi da def nii def la neex rek ñu jël la tukki nga dem dem fu la neex wala nga nga yaakaar ne mën nga fecc déedéet fecc c'est de l'art feccu démb nu mu ëppee doole feccu tey ak dafa bari ma lay xamal nag mu feccu tey. sànq na yàq na ci feccu démb lu bari lu mu yóbbee ña aar te yal na suñu borom bi delloo si xel yooyu ba ñu dellu si waat ñu xam ne fecc c'est de l'art xam nga nit bu toog si këram di inspiré ci yaramam ñu gis ñu toog ñu gis boppam ba mën a defaar yooyu pour am ci dara dafa am solo il faut ñu bàyyi xel kontaan naa jërëjëf yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di bi yëpp Dakar midi ah. Dakar midi wasaar na wasaaroo meer yi ñëw seen kaw ñu xel bi daal kii rek sama doom la Fatou Waré. Fatou Waré damay ñëw <laughs> ma neex ci moom. mooy mu xam aar. moom mooy benn fecckat bu ma suivre bu xam aar ci jamono yii ñu toll. te xeebul kenn ku xeebul kenn ku mu wane waree mi ngi koy wone Fatou jërëjëf amal fu lay dund yàlla na sa yàlla na sa dund gi yàggul lool ci nga wér. amiin yaa rabbal doom boo amee ñun ñëpp ñu am. amiin boo jëlee Sénégal ñu ko Sénégal di ko barke kon ñun nga defal. barke Cheikh te yaa ngi drapeau bi de dara ñorul la man xam naa ne dara ñorul yow drapeau bi Sénégal bi moo la yëpp te moom nga yor yàlla na sa sant. amiin yaa rabbal Fatou wala yëpp maa ngi lay wax. yaa ne yaa mu ñaaw mu ñaaw te dàq yaayam lool ci fulla ak fayda jom ak am caractère xoolal dundal. maa ngi lay nuyu. ñoom seen sanitaire yi feccum démb feccum tey. dëgg xam na ne feccum tey ñoo gën a siiw ko feccum démb. Mm-hmm. li ngeen def si aarum tey bari mm-hmm. démb lan nga différence bi. Euh, d'abord damay nuyu ñëpp di remercier sénégalais yi di baaluwaat ak nit ñi ci weeru koor bi mu nekk. d'accord di nuyu sama yaay ji sama yaay Aïda Patara sama xarit sama référence sax bu ma demee ci télé def li may def mooy zéro ak def ak sama xel ak def li ma sant def lii bañ a def pour kenn may seetaan loolu mooy Aïda Patara ma koy ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam sama yaay la sama xarit la ku baax la nit ku baax dañ lay gis ci benn affaire rek bëgg la juger parce que at na toll booy seet wàllu da ngay def ba seet leen ci fi ñuy nekk nii muy mel nii parce tamit nag yàlla wàccatul jox kenn bu lay jox ci doomu aadama rek jaareel kon maa ngi koy remercier bu baax di lay remercier Pa Moussa Sonko di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm yéen oyof ci barke Serigne Touba. rëccu démb ak tay nag Fatou Wara ku ko xam-xam ne dafa mélangé démb ak tay yàgg naa leen a wax dama bëgg mère Tako umi seen sama yaay yi ma toogal ah mère Ndeye Fatou Ndiaye sama yaay waaw nekk sama secrétaire nag ci sama panel yër ma nag aar ma yër ma te yër ma nit ku nekk jamono. dëgg la maa ngi koy félicité di ko ñaanal jàmm. waaw wane sama jàpp. barke Serigne Touba. parce que dama daal barke Cheikh Rafaal. sama yaay la sama xarit la. dama ko bëgg mer tàkko mu nekk nit ku baax sama yaay yi toog waaw te gis nga Pape Moussa dafawul mm-hmm. moom dafa nekk nit boo xam ne des fois daf may woo mm-hmm. laaj ma mm-hmm. laaju ma ci fecc de damaa mën a fecc dëgg la mais jiital gi ma jiital moo waral loolu kon Pape Moussa aussi maa ngi koy remercier di ko ñaanal bonne continuation nan ko fa mu ko teg gis nga àdduna boo respecté ñi la mag yërëm ñi nga jiite respecte say waajur barke rasulillah kenn du la tere dem billahi boobu te teg nañ ko ci tànk boobu ma faat were mm. yàlla suñu borom bi jàppale allahuma amin allahuma amin maa ngi daal félicité ñëpp feccu démb ak tey nan ñu dégluwaat rek am nan lu nuy waajal ak sama mag nogoy ngom ñu ngi koy waajal te bu soobee yàlla dinañ xam ne fecc du ndax ñun lu ñu am fecc ñu ko may fu ñu dem ci àdduna fecc moo ñu fa yóbbu maa ngi nuyu ñu fi teewoon ñëpp ñoom Jean Tamba Oumou Sow bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw Coura Ndiaye rek leen nuyu. ah maa ngi lay fay waa Dakar midi la du. waa Dakar midi ak wasaare. ah midi pile man ci laa juddu midi laa juddu. yéen waa wasaare nag kon yéen da ngeen di wasaare kon mbaa dina dina tas ba yegg bitim réew waa kon wasaare ngeen wax yàlla na wasaaroo. bu maa ñëw tey nga xamante ne tey mooy Tonton mu ne sax moo jiitu suñu juddu dañoo ñëw fekk foo fekk fii mais ñu waxtaan loo xam mag mais li nga xamante ne tey feccum démb ak feccum tey chorégraphie bi tey xale yi léegi def def te yàgg ngeen si aar yéen. fii ma taxawoon léegi dama fay yàgg a taxaw. xarit ñi siiw ñu am xaalis tamit loolu jaaxal na ma tamit. ñoo ñoo ñoo bëgg a defe dafa yàqu. aaru démb ak bu tey xam nga tey nag musique la ñuy gën a fecc ko bale ak yooyu ñun danoo wër Europe. wër wër Asie ba tey yàlla def ñu nekk États-Unis di jàngale fecc ñu war a jàngaar ci lu ne gis na ba ma yeggee man Amérique ak na ma mënoon a fecc doon star bi fii maa doon star bi ba ma yeggee Amérique dama jàngaat ndax euh, aar dafa neex moo ma gënoon lu ne ci àddina mais dama lay bëgg a wax rek nii xëy naa tey xale yi dañ ci xool xaalis ba mu ëpp te ñun bu njëkk ba xooluñu woon xaalis ñun li neexoon mooy ñu tukki dem ñëw xam nga sa koñ nga wane ni dama tukki woon ñun loolu rek moo ñu ci neex lu ñu am tey ñun ñoo ko amal suñu bopp ba ñu génnee ci Sorano wala ñu génn ay Balade d'Afrique noire yooyu man dama jaar bale d'Afrique noire après ñëw Sorano mais ñun dañu bëggoon rek dafa neexoon dafa nekk loo xam ni daf ñu doon dundal gis nga boo musaan def dara. ñu suspendre la dafay mel ni dafa am lu ñu rocc ci yow da ngay jooy te kat duñ la fay dara de mais dañu amoon amour bi mu neex ñu ah di wax nag sama doom yi fi nekk léegi. dafa génne cër. waaw dafa bëri ay kalak lonkal ak lonkal tubaab yi xamuñu loolu aar bu set bi la ñu bëgg ma di leen wax ñu jàngaat seen njëriñ la te bu ñu leen yóbboo mu tukki ñu bàyyi daw moo tax léegi dara dem man maa leen koy wax man mi dëkk États-Unis ma ni. li tax kenn génnatul kenn yóbbootul bale daw yee tax yàqal nañu tey ñu bari des fois damay wax il faut nga dëkk ci réewu tubaab yi pour nga xam loo daw fii boo yàggee fële di nga bëgg a daw ñëwaat fii fii di nga gëstu gis sa mbokk yi di nga gis gis sa yaay wala sa nijaay fee yow dong lay doon su fekkee ni concentré ci li ngay def xoolal da ngay da ngay da ngay immigré yu bëri gëfam nañ artistes yu bëri li may wax nii ci ci site laa koy waxee artistes yu bëri dañuy am problème bu ñu tukkee parce que boo xëyee rek nit yóbbu la tey yow nga yóbbu ma ma tukki man ma daw naan ministre de la culture rek yow laa indil problème yow laa tas sa yaakaar te man boo ma wóoloo ba jël ma maa ngi ñibbi si sama visa jeexagul lu tax mënuma am ngor wala su may daw ma xaar sa liggéey jeex mais des fois dañuy dagg sa contra ñu daw. la problème yow moo tax du bëgg ñuy wax ay ministère de la culture ay déedéet yow Gorel festival xam nga lu tax yow mi ma yóbbu ma dem Espagne su fekkee ñun ñun ñëpp daw nañu kan nga yóbbu kan ngay mën a yóbbu te ma yàq sa contrat impresario boobu day wax ak beneen impresario ni ko Sénégal bu leen indeeti léegi Guinée ñëw tukki ak Mali Sénégal kenn génnatu fi te loolu du yoon Pierre Bouleye ñu ni xam na li may wax moom. moo ma yoroon fii mais daw yàq na père daw yàq na aar bi la daw yàqal na ñu bari dëgg la daw saboté na dëgg su fekkee ne tey yow père Boulé danga ma yóbbu mhm. man damay bañ ñu naan ndax ministre de la culture defal nañ leen lii déedéet yow laay tas sa yaakaar te ku tas yaakaaru nit fa nga ne doo fa am yaakaar bu sonn may wax artiste yëpp ni leen ñu delluwaat mhm. jàppaat mhm. ñun dañ daan dem di ñëw bu ñu neexoon daw. mais dañuy ñëw toog. boobu la boobu la tukki neexoon. boobu lañ daan jaay du soxla sax. suñu salaire fii. bu ñu ba pare dañuy daw génn ci biti jaay tubaab yi boobu la daw neexee. mais ba daw méttee la ñu daw ñuy wax nag artistes yëpp ñu jàpp te xam ne a ah, Sénégal dara dàq ko de dañu am aar bi nag. ñu am de te tubaab yi nag boo waxee Afrique ñu ne. ñi dàq fecc ci monde bi kon nañ ko jàpp maa ngi leen di ñaanal jàmm